je peux te dire que c'est un jeune artiste peintre parce que en 2020 a commencé l'art. art le 23 mai 2020 Là, c'est ma première œuvre d'art. j'ai sacrifié beaucoup beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses je peux rester trois nuits hein, sans fermer les yeux. trois nuits mun naa ko toog du ma nelaw man ba léegi je pas à comprendre si aar quoi ba léegi ba léegi mënu wax si ar man daa xamoon naa ni en 2020 mooy temps confinement j'avais rien à faire sama gaale rek laa doon toog man xaar mu foo xam naa don bu ma yàlla la mais musuma ko xam ak star bi rek euh, maanaam boog c'est pas par hasard quoi c'est pas par hasard demay liggéey après ma jox ko ñom ñu xol ñom ñu apprécier après ñu après ñu après ñu am relation quoi entre entre man ak man tableau yi tableau euh, trois tableaux Je na tableau j'ai passé des nuits et des nuits ce tableau bi may pendant des jours ce tableau bi euh, tableau bi ma war ko yóbbu ma ko doon yóbbu ma def accident si yoon bi tableau bi pare woon na ba pare ba lépp naas ma war ko yóbbu mais dama accidenté woon si yoon bi tableau bi yëpp yëpp yàqu jour boobu laa jour boobu laa njëkk a jooy si wàllum aar jour boobu laa njëkk a jooy te lu ma jooy musuma ko woon jooy jour boobu noonu parce que affaire bi daf ma marqué woon à tellement tu vois. Dungu weli tota no